man ma jël kàddu annoncer la motion de censure que j'ai déposé nak parce que ñu bari dañuy wax déposer wuñ ko motion baangi ni ak date bi ko déposer yow ya ko ñëk gis à part membre bureau assemblée nationale ñu ko annoncer tay démb le 3 lañ ko déposer parce que xam nga man dama waxone ne dinaa ko déposer le 3. Mm-hmm. hein ok da da da ngeen koy motiver kon. de xoolal xoolal bu déggoo li ma la motion de censure baangi ah xam naa moo tax ma lay laaj. parce que lépp mënu ma ko liir te bëgg naa xam ne. ñu motivé bu baax jarul liir nag. <coughs> gis nga. Mhm. d' accord. xoolal ci kaw le 3 laa ko déposé non ci feuille bi ci kanam bi ci kaw bi ci kaw première page bi mention baa ngoog le 3 laa ko déposé. de l'article 86 de la Constitution. Par conséquent, nous demandons l'ouverture d'une session extraordinaire pour son examen. D'accord. Légui. bon non non Abdou yow non nga mm-hmm. demander session extraordinaire. une mm-hmm. session extraordinaire fait la la non non non est-ce que loolu njortoon ngeen ni noonu lay demee. non non non xaaral bi ngay bi ngay def sa galgal bii yow. bàyyil ma ñëw pour xaar premier ministre mu ñëw. bàyyil ma ñëw nga teg sa motion de censure. bàyyil ma ñëw est-ce que xamoon nga ni beneen session boo xam ni yoon may na ko président de la république mu sàkk ko ci yéen ba ngeen woote suba. bàyyil ndax xalaatoon ngeen loolu. bàyyil ma Benno Bokk Yaakaar yaakaaram tas na. Eh, alors léegi président Mbow. Mhm. ndax lii du défaite ñaar ñi ngeen doon protéger ñaari président institution yi. Mhm. dàq nañu leen. Mhm ak lo wax nañu euh, motion de censure bi ni ko pas ko waxe mom PM xam nga ni du parce que buma ma ci un député. amna ci ay un yu mu ci wax. que pour ñu dem ci DPG. ba motion censure di am huit jours avant. ci lañ ko wara a annoncer mais xam nga ni ci délai yi ñu am. fi ak le 12, lolu xaju fi. Euh, Papa Ngagne Abdou Mbow rek assemblée nationale.

Hmm. bay egg ci motion de censure hmm. motion de censure boobu tey hmm. amaana bu fekkoon am nga ci ndam am ngeen ci ndam laay wax mais ban njëriñ lay am ci mo même bu fekkente ni ngeen gouvernement par exemple euh, bu Ousmane Sonko nekkatul premier ministre Bassirou Diomaye Faye mën na ko mu premier ministre ci saa mais loolu ban njëriñ lay am loolu euh, xam nga njëriñ bi Benno Bokk yakar yaakaaram tas na. asalaamaaleykum gars yi ziare naa leen ci lu ngeen ne bàyyi leen si jàmm bu baax a baax a baax lépp loo xam ne waa Bennoo Bokk Yaakaar bëggoon nañ ko rek ñoom waa Bennoo seen yaakaar tas na Bennoo Bokk Yaakaar seen yaakaar tas na lépp li nga xam ne bëggoon nañ ko moom Abdou Mbow ak groupe am lépp lu ñu bëggoon rek loole dal di nay. tas ba tasaaroo muy bëgg-bëgg ak yene gi nga xamne ne nañ ko ngir dal di def motion de censure du mbaw nak gaddu won nak nag ñëm fële sa assemblée nationale yëkëti fa kàddu yooyee moom Abdou Mbow moom ne yëkëti waat kàddu yi fële ci groupe futur Médias bi nga xamne ne ki di Pape Ngagne daal dina koy dalal yene nak ak bëgg bëgg mo nekkon motion de censure bi nga xamne yëkëti won nako Euh, ay kàddoom fële ci assemblée nationale ne dëgg na ko yéene na ko te dina ko def euh, pour dugal ko fële ca péncum ndaw réew ma ngir ñu daal di koy def kii di euh, premier ministre di Ousmane ko loolee nag yàlla daal dina koy gàntal ndax assemblée nationale bi ni ko askan wi sàkkoo woon noonee la ñu pare pour daal di koy def muy dañuy tas assemblée nationale Benno Bokk Yaakaar seen yaakaar tas na noonee la ko kii di Ousmane Sonko premier ministre waxee tas boogee nag mooy continuer di tas ba léegi ndax nag lii la wolof naan yéene néeg la borom ma cay fanaan moom Abdou Mbow bëgg-bëggam ak yéeneem moo nekkoon daaneel premier ministre bi loolee nag li ne li naan ne yéene néeg la borom ma cay fanaan waa APR ñoo mujjee fanaan sa néeg boobee te xam nga ne ñi nga xam ne nii ñoo nekk fële sa assemblée nationale di député yi Benno Bokk Yaakaar yi bu ñu demaatee ay élection député ñoom kenn ci ñoom ñi nga xam ne ni ñoo nekk fële ca euh, assemblée nationale teewal fa waa benn Bokk Yaakaar dootuñu fa teew ndax tekkiwuñ dara moom ëpp mbaw nag waxoon na yéeneem ak bëgg-bëggam ne motion de censure dinañu ko dugal fële sa ensemble nationale Eh, dal di ko jox ki nga xam ne moo di Amadou mam Diop ngir ñu daal di koy def kii di premier ministre bi di Ousmane Seydina Sonko loole nag yàlla dal dina koy gàntal looloo tax le premier ministre bi Ousmane Sonko waxoon ne waa Benno Bokk Yaakaar seen yaakaar ja tas na gimiñ ko am barke nag dañuy moytu di waxloo borom gimiñ ko am barke dañuy moytu di waxloo borom moom Seydina Ousmane na mu ne woon waa Benno Bokk Yaakaar seen yaakaar tes na ñu dem ci élection présidentielle ñu ñàkk élection yi ñàkk bu métti métti daana ba juutu juutu googee nag ba léegi juutu googu ba léegi moom lañ continuer di juutu ba léegi dañuy juutu ñoom waa Benno Bokk Yaakaar am na yenn nag ay dof yi nga xam ne ñoom waa kër dof yi am na ñenn ñu génn nag mooy ñooñu ngeen dégg ñu naan nañ tuddee xaw ma kan Abdou Mbow ñoom denc leen ñoom. moom mooy loolu noonu waa Kër Dof yi rek seen groupe lañ bokk mais Abdou Mbow yéeneem ak bëgg-bëggam yàlla gàntal na ko ndax moom li mu bëggoon bu amoon wax dëgg yàlla dina doy waar mais nag yàlla mooy dogal jaam ak pexem yàlla ak dogalam ba tax na moom premier ministre wax na ci li nga xam ne nii ñii di waa Benno Bokk Yaakaar mébatoon nañu ko te it bëgg nañu ko dalaa dalalaatal na xel yi sénégalais yépp ñi nga xam ne ñoo topp kii di Ousmane Sonko premier ministre ak président Bassirou Diomaye Faye ngir ñu gën a dalalaat seen xel yi xam ne li nga xam ne moom la waa Benno Bokk Yaakaar bëgg du am tay du am suba du am ginnaaw suba dinañu dem ci ay élection député gañe ko jël ko dal di nekk ca bopp ba defar réew mi ndax loi yi nga xam ne ni moom la ñu war a wote fële sa assemblée nationale dañu faa war a am majorité kon dañuy dégg ci ki nga xam ne rek moo di Ousmane Seydina Sonko mi nga xamné fessel na ay kàddu euh, jëmelo ko ci askanu Sénégal yi ak ñen ñi nga xamné ay sacc lañ woon ba paré bëgg daw génn réew mi mom dal dina yëkëti ay kaddu wax ne ñooñee nag bàyyi boro ñu dal di rek seen xott fi ci réew mi ndax dafa wara dafa am li nga xamné war nañ leen ko laaj ñu tontu ci lolé nak bu ñu génnee réew mi bu ñu demee ñu ñëwaat kon faaw rek ñu dal di koy rek seen xott fi ci réew mi bu ñu paree ci ñoom laaj ak tontu bu doxee ci ñi nga xam ne ñooy àttekat yi ba xam alalu askan fan lañ ko dugal bu boobaa nag bu ñu paree mën a dem seen yoon ndax mbir mi dinañu ko àtte ci dëgg ak sellal ak jubal loolee nag moom Seydina Ousmane Sonko noonee la ko daal di waxee nee na du am benn parparloo wala benn dossier bi nga xam ne dañ koy monter ngir di sosalaate ak yooyu noonu yooyu yëpp du ci am mbir mi nañ ko teg ci yoon ba képp ki nga xam ne nii defoon nga bii alalu askan bi bu ñu la jàppee boo ko mënta génnee fi nga ko jaarale woon nga génne ko ci suuf wax day leer ñu déglu ci ki nga xam ne moo di Seydina Ousmane Sonko mu sell mi nga xam ne fësal na ay kàddu wax ne ñi nga xam ne dañuy daal di dem nañu toog ñu déglu ji ko. waaye di di wax Sénégal yëpp ni ñooñu di balli balli di tëbëki dal ndax xam nañ ni mbir mi jeex na ba tax ñu leen jëf course contre la montée dañuy daanel gouvernement duñu daanel du toll ni tarfata ayin motion de censure ci bopam modul am fi Sénégal tol mo wax ko te tek ko fu leer te ci tay bala bëss bi du jeex di ngeen gis li tax mo wax ko am na ñoo xam ne dañoo jàpp ni aduna yëpp politique la te buñu gisé fiñu jaar ak ñom ba ci fi war nañu xamni ñom mënuñu politique ndax suñ ko mënon li di on non nak lañu fassiyene continuer ak ñom te noonu lañu ñu fas yéene doxalee ci li jëm ci aar alalu réew mi ci bépp fànn delloo si alalu réew mi ndax ñi nërmel réew mi gasal ko kàmb gu dul jeex jël ay milliards yi dugal seen poos lii ñu génn ci réew mi te xam nañ fi ñu ko jaarale ñoom ñëpp nag ma wax leen ko bis ki tey suñu tekk tekkaaral bi boobu ba léegi wax naa ko ñaari yoon wala ñetti yoon du woon faiblesse dañoo bëggoon li ñuy liggéey ñu teg ko ci méthode ba dossier bu ñu yëkkati rek laam-laame du am waaye comme gis nañ ni ñoo ngi commencé di daw am na déjà ñeent wala juróom yu génn ñi ngi Dubaï ñi ngi Canada moo tax ñu jël ay mesures conservatoires ndax ku ci dem du dellu si ndax xam nañ li def ñoom ba tey jii ñu mën a toog ci réew mi xaar seen wàll ci war a ñëw jàkkaarlook Euh, yoon pour layoo ko te du am benn dossier bu ñuy monte nag dossier yu leer nañu lay doon loolu nag waratul am ci réew mi su ma koy wax fii dama bëgg a joxe exemple niñ ko bañee ci ñoom ñooñu ak li ñu def noonu lañ koy bañee ci ci suñu euh, régime kenn ku nekk ci yéen li mu am bëri na tuuti na li mooy wër wërsëgam na ko sante yàlla te kën a continue di góorlu xam ni yàlla waxul kenn dara ni ko xale di waxee nit commencé na ci cinquante mille francs mujjee ci ay millions lépp te te jaayul ngoram jëlul lu moomut loolu dafa am solo continuer di liggéey yem ci li nga moom bañ a dugg ci loo xam ne moom loo ko te kenn ku ne ci yéen dafa am obligation loolu tam ma wax ko tey agent bu xa bu gisoon premier ministre muy def lu lul yoon wala mu jël lu mu warul jël yoon la farata la mu dem dénoncer ko loolu ay texte la yu nekk ci suñu loi nekk ci suñu cadre communautaire obligation la parce que fonctionnaire yu bari dañuy gis tul yoon mais dañ naan sama yoon newu ci waruma wax loolu dafa mel ni presque complicité la donc kenn ku ne bu gisee lu jaaduwul daf ko war a dénoncer parce que ay nit bokk liggéey kii ne man maa ngi muñ parce que dama gëm yàlla te bëgguma yóbbu sama kër lu lewut takk biiram keneen ne man damaa yàkkamti il me faut des millions ñu toog di ko seetaan loolu bokk na ci li yàq réew mi kon loolu ma insisté soo gisee président de la république bi mu toogee li mu njëkk wax mooy dinañu teg benn projet de loi pour gën protéger les lanceurs d'alerte loolu dafa am solo pour gën a protéger ñi nga xam ne gis nañu dul yoon ñu dénoncé ko am na ay réew yoo xam ne boo doonee lanceur d'alerte dañ lay fay dañ lay jox xaalis ngir loolu ba ci États-Unis am na fa yow mi signalé benn cas ñu càmbar gis ni cas bi am na dañ lay jox xaalis yow donc loolu day tax ñu gën a dëgëral li nga xam ne moom la ñuy tuddee la lutte contre la corruption. képp koo xam ne nii daal gis nga ne kii di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre war nañoo mën a soppi réew mi lépp li nga xam ne nii wax nañu ko ak askan bi loolee nag fas nañ ko yéene doxal ngir la nga xam ne waxoon nañ ko askan wi dara bañ cee génn ñu doxal lépp comme ni ñu ko diggee woon askan wi loolee nag la ñu nekk di doxal ba tax na comme waa Benno Bokk Yaakaar li nga xam ne bëggoon nañ ko mébétoon ko loolee yëpp moom Seydina Ousmane wax na ne dalal na ci xeli sénégalais yëpp xam ne loolee nga xam ne ñii di waa Benno tas yaakaar waxoon nañu ko ñoom ñoo ñee seen yaakaar daal dinay tas Benno Bokk Yaakaar yaakaaram tas na mooy waa Bokk Yaakaar seen yaakaar tas na moom Seydina Ousmane nag noonee mu ko waxe woon noonee lay wéy di amee noonee rek la ñuy di amee ndax kii dëpp du mbaw ak la nga xam ne waxoon na ko yéene ji nga xam ne amoon na ko ci bu doon mën na ko ca bis la koy daal di def ca bis ba ndax yéene ji bëgg-bëgg ji moom mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekk daal di essayer li nga xam ne waxoon nañ ko askan wi ñu bañ cee def dara ñoom waa APR yëpp du ëpp du rek ñoom waa APR yëpp ñoom loolu mooy seen mébét loolu mooy seen bëgg-bëgg. lol la ñuy sàkku loolu la ñuy ñaan ñom wa APR ndax li nga xamni ñom def nañ ko ci rew mi askan wi musuñu ci bëgg dara dara ba dara lo jeex lii yépp ñak gi nga xamni ni askan ñak nañ ko and ak ñoom mo leen ko jural ak li nga xamni nekkon nañ diko ko def ci rew bi mu nekk jëf yu ñaaw yi nga xam askan bi duñ ko mësa a fi fii ci rew mi rawatina ñi nga xam ne ñoo di jeunesse bi ñooñu ñoo gën a loru ci nguuru Macky Sall te ñu jamono bii ñooy voté bu ñu demee nag ci élection yi askan wi yëpp dinañu maase voté comme niñ ko njëkkoon a defee ci élection présidentielle yi ñu génn ñu xamal ñii di waa APR ne leen yéen doyal nañ doyal nañ ci yéen sëkk sëkk sëkk sëkk. bu boobaa nag lañu koy gën a xam ndax ñi nga xam ne ñoo nekk fële sa assemblée nationale toogal fa waa Benno Tas Yaakaar bu boobaa seen yaakaar dina gën a tas Benno Tas Yaakaar seen yaakaar day gën a tas di jëm ca kanam ba keroog ñoom ñooñu li nga xam ne lekkoon nañ ko réew mi ci réew mi ñu génn ko ci alal ji nga xam ne léwul loolu sax moo tax kii di Seydina Ousmane premier ministre wax nañ ñi nga xam ne dañu doon daw di génn réew mi am na ñett ñi nga xam ne sax jot nañoo demee. ñëwaatagul ñi nga xam ne nag dañoo bëggoon a dem ñu téye leen ngir jubal jub jubal jubbanti gi dal dal seen kaw xool ba xam dëngal nañ wala euh, jubal nañ bu fekkee jubal nañ nag xayrul bu fekkee dëngal nañ yadu dal seen kaw réew mi noonu rek la ko Seydina Ousmane nar a yore ak kii di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye képp koo xam ne dëngal nga foo mën a bokk yadu dal sa kaw mu bañ a am benn par loolu moom leer na nañ ñu ne wax na ko ñeneen ñi nga xam ne nag ubbi nañ seen naanukaayu fonde di wax di wejjate yi di taale rajo di wax ñooñu benn njariñ am na ñenn nga xam ne nag ay journaliste lañ xaw ma ay journaliste dégg naa leen ñuy ubbi seen gémmiñ di critiquer di wax naan ñee eh, Ousmane dafa waroon ne nii lu tax muy def nii lu tax muy wax loo xam ne waru ko woon a wax ana nangam ñun ñëpp ay saytaane lañ ay waaba jiibal lañ. mooy ñu gàtt ñi nga xam ne kenn xam ay lan lañ ay rab yi àll lañ xaw ma ay luñu ñi ci wet gi kenn déglooti leen ay journaliste yu perte lañ Seydina Ousmane nag li mu digg ak askan wi dina ko def bu soobee yàlla moom xam ne ne comme na ma ko daan waxee rek li nga xam ne ma nam nañ ko def ci réew mi ku dul yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mënul te ñu def ko te loolu nag mooy gëm-gëm ndax lépp loo xam ne rek def nga ko yàllaa tax nga def ko lépp loo xam ne defoo ko yàllaa tax defoo ko ndax moom moo benn bu te it mooy dogal kon lépp li nga xam ne nii moom Seydina Ousmane waxoon na ko fas na ko yéene def joxoñ bi nag jamono ji nañu wéy topp bi nga xam ne joxoñoon na ko ndax beneen joxoñ a ngi ñëwaat boo xam ne nii moo ëppaat solo ci li nga xam ne ni moo di procès Pastef bi nga xam ne moom la Sénégalais yu baree bari teg seen yaakaar ci ne kii di Ousmane Sonko ak président Diomaye moom Ousmane Sonko premier ministre bi dina def kéemtulaay kàttanam ba nga xam ne réew mi dina am ay coppite yi nga xam ne nii ci moom ak président bi lay jógee ngir Sénégal gën a jub gën a jubbantiku jaar ci aw yoon yokkute yaakaar am na ko ni kàddu yii nii kàddu yaakaar dëgg na ñu dolli laa ñaanal rek ndax fi nga jaar foofu la bul bàyyi waa benn tas yaakaar nañuy wéy seen yaakaar di tas jaa ngeen jëf gaay